gërëm leen sant leen si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa ne si Dakar Actu TV si seen i émission Actu Débat tey nag ñu amane mbekté bu baax waccat si langue politique bi waye tamit wacc si société bi wara a question d'actualité yi nga xamante mom mo soxal réew mi euh, soxal aduna si tamit si on se permet de le dire moo tax tey ñu dem ba ca assemblée nationale euh, jëli ki nga xamante mom mo nekk honorable député Abdoulaye Matar Diop nekk cinquième vice-président bu assemblée nationale. Euh, alors Serigne euh, Abdoulaye Matar Diop nek grand Serigne de Dakar nek également chef supérieur de la collectivité Lébou, nekone également ancien ministre des sports occupé également et poste yu am solo si euh, seen politique ou alors honorable mang lay nulu di la dalal ak ci Dakar Actu TV. wa jërëjëf tam maa leen di fay bu baax a baax di nuyu Dakar Actu mhm. ak ñi nga xamne yalla do dogal ñu seetaan li di len dal bu baax baax ci di laaj. Mhm. alors chef supérieur. Euh, de la collectivité Lebu euh, député à l'Assemblée nationale mu nek ñaari mission yo xamantene yang koy doxal be soxal askan wi benen bi soxal collectivité Lebu mm. est-ce que bolé ko yomb na waaw yomb na ndax euh, collectivité lebu ci biir réew mi la nek mm-hmm. lebu yi ak Dakar waaye ci réew mi lañu bok tout à fait lu yittel réew mi yittel ñu mm-hmm. kon yomb na yomb yomb naa gàddu te yalla dafa def sax ni nga ko waxee man euh, sama jaar-jaar yëpp bi ma dee xale ba nekk euh, fi ma toll nii masuma yenu benn yen hmm. su ma nekkee secretaire général adjoint ministère de l'économie et des finances hmm. nekkaale président fédération handball su ma nekkee directeur de cabinet tel nekk confédération africaine yàlla moo def toujours damay damay boole ñaar wala ñetti mbir hmm. kon tàmm naa ko ba nga xam ne su amee luy sooxaate sax sama waa kër lay gën a lor que li ñu ma yenn donc min nga ko tàmm nga ko tàmm naa loolu moom tàmm hmm. naa ko waaw li nit ñi di wax miis nga ko <laughs> exact miis na ko bu baax baax d'accord honorable est-ce que lolou tamit euh, dina mën permettre nga nga doxal euh, ni nga wara a normalement si si say fonction de en tant que député wara représenter askan wi wa xam nga hmm. su fekkoon lu ñu yenu la hmm. da nga naan suma ma 300 trois cent kilos ceeb du ma dem suma ma 200 deux cent kilos du dem mais suñu borom mo def mbax bu toll ni xam-xam bari bari lu dis. Mhm. xam nga yow tay ji soy tukki frontière bo dem ñu la. Mhm. mais nous fouyé sa bop xam-xam ci plus sa poste. tout à fait. <laughs> am tout à fait hmm? ku tukki ñu la ay détecteur de métaux kenn mhm. mais di lay jariñ mhm. nga xam ne moom ngay fexe di amee alal wala moom ngay sàmmee sa alal da nga koy antan moo tax gis nga liggéey bi lu mu métti métti bu la yàlla mayee xel mhm. ak dal goo ko yenoo rek mu oyof. d' accord uh-huh. grand serigne de Dakar euh, actualité bi moom moo nekk euh, taw bu bëri bi nga xamante ni wàcc na ci Sénégal. Uh-huh. Euh, jur ay dégâts yu bëri. Uh-huh. li ci mel ni inondation yoo xamante kër yu bëri tey ñoo ngi ci biir ndox bi. Dakar am ci wàll boo xamante ni bu am solo la. ñoom tamit ñu nekk ci biir ndox bi li ci mel ni ca Géejawaay li ci mel ni ca Kër Massa li ci mel ni Parcelles Assainies j'en passe ay quartiers yu bari yoo xamante ni tey ñoo ngi ci problème boobu noo koy dundee d' abord ak population bi. waaw euh, man maa ngi masawu nit ñi di wax ne lu leen dal lu ne ni ma ubbee waxtaan wi. Mhm. képp kuy kilifa ci réew mi da nga koy yëg. da ci am mbokk nga am ci xarit walla dëkkandoo kon lii leen dal ñu leen di masawu bu baax a baax yoon na kenn ku nekk nag ci ñun ne delloo xelam ci suñu borom. Mhm. ñu jàpp ne lii ñëw yéen ngay wax mbënd mi waame la. Mhm. mbënd ndox mu jóge suuf la waame ndox mu jóge ci kaw la mhm. te ginnaaw nag ndox mu jóge ci kaw suñu borom moo koy andi metti na lool lool lool taxaw ci ay pexe moo ci nekk wande gis nga nii nga xam ne moom nga ubbee sa waxtaan mhm. ak fa nga wax ne am na fa ndox nga bàyyi gox yu bari mhm. fenn fu nekk nañu seet lu ko waral wax nga Kër Massa xel mënul nangu hmm. société bu tudd HLM hmm. defar Parcelles Assainies bu Kër Massar te deful assainissement bi te mu tudd Parcelles Assainies kon da ko waroon jiital assainissement bi muy ben gis nga Parcelles Assainies bu Dakar bi hmm. man bama ma nekkee lañu la ñu commencé defar réseau yi dañu dafa tudd Parcelles Assainies ñu defar pax fu nekk ci kër yi té raccordé wuñ ko ci mbedd yi boo seetee travaux yi ñu def ñu def Parcelles Assainies yëpp mm-hmm. ay égout ak ay collecteur la ñu def ci mbedd mi pour brancher ci kër yi muy benn mm-hmm. ñaareel ba parce que mbir foog ñu ñeme ko mm-hmm. boo demee Bambilor Sangalkam ak boor yëpp kër njaayloo kuunul kër yi ñu fa tabax promoteur immobilier yi ko tabax coopérative yi ko tabax est-ce que def nañ assainissement benn war ñoom question la booy poser am tontu bi parce que defuñu ko. dama defuñu ko même dama dama bëgg expliquer parce que yeen sen télévision bi li tax man na waxtane yeen dama koy suivre. hmm gis ni ngeen di liggéey tout à fait mais na la wér mhm. ñu bari ñu melni yeen yéen war nañ moom bañ. li mhm. ma koy wax. salim dama dama bëgg ñu ñu sét li nga xamné hmm mo dal ni ku leen ko tek ndax yow sa xel mu naa nangu nga tabax ay cité jaayé village 20 millions def ko ci fosse septique. fotu état baa ngi ci fotu promoteur yaa ngi ci parce que du dëgg ngay tabax cité jaaye kër 20 vingt 25 millions def ko ci fosse septique kon tegoon ci 3 millions ci kër gu nekk. Mhm. defar réseau assainissement bi bu luy amee seen borom noppalu. donc lii ni jafe-jafe assainissement moo ñu ko yóbbee. loolu la parce que xam nga assainissement. Mhm. boo bokkee ci technique bi da nga koy xam. Mhm. daf ci am wàll boo xam ne wàllu état la. am wàll boo xam ne bu fekkee ay promoteur ñooy tabax wala HLM wala ay ay euh, SICAP loolu seen liggéey la boo ko seetee bu ñu lotissement ba jaay def ay compteur compteur courant VRD voirie et réseaux divers gis nga euh, Dakar gi ngay

ak ñàkk liggéeyu maire yi wala état bi pour defaraat ko boo seetloo RTS yéen ñëpp wane ngeen ko. Mhm. bi ngeen xëyee ndox ma jóge mhm. am déet. Mhm. rond point Colobane Masalikal Jinaan. wane ngeen ko. ba ngeen xëyee ndox ma jóge ñaari tali ndox ma jóge na li ko waral ndox moom mu daje foofu foofu mooy bassin versant wu Wakaam. gis nga Wakaam. boo defee étude hydrogéologique wu Dakar. ak étude de terrain gis nga ndox muy jógee kaw Mermoz mm. yëpp mooy li ñuy wax man ba mu nekk sama mooy bassin versant Ouakam mm. moo jaar amitié moo tax gis nga boo jógee euh, boo ñëwee ba euh, université Hampâté ba mm-hmm. xam nga foofu boo ko xoolee lu ñuy wax collecteur Hann Fann foofu la démarré jóge ci kanaal Gueule Tapée boobu jëm Soumbédioune mm-hmm. jaar nag ci suufu maison du parti mm-hmm. gis nga canal boobu gis nga boo ñëwee ba lycée Blaise Diagne fi mu jeexee ci angle bi xam nga am na benn rond point jàkkaarloo ministère urbanisme am na benn chambre de pompage foofu mhm. bi mhm. na chambre de pompage foofu mooy refoulé mhm. mu jaar ci suuf jël ndoxu Masalikal Jinaan jël canal bi nekk ci ginnaaw ministère urbanisme jaar Colobane dem euh, fële euh, Anne kon su ma la déggee ngay wax euh, assainissement bi moom la ñu war a jiital laata ñuy dëkk. wa waaw xam nga dama moo tax gisoo Dakar. Hmm. Dakar. Hmm. nañ ko li Dakar plateau. ma soo gis mu taa. Hmm. parce que ni mu bindoo ba ñuy dëkk dañ ko topp tubaab bi dañu topp pant yi. loolu Parcelles Assainies loolu la ñu waroon gis nga Parcelles Assainies xur yi nekk foofu ba booru géej. ñoom ñoo dem sëkk ko. seetlu woon ne tali yi boo demee fële euh, Sicap Rudis. non Pikine Rudis. même bu tawulee kër yaa ngi suufu mbedd mi. waaw am déet. si boo demee parcelle am na kër yoo xam ne suufu mbedd bi la nekk. Mhm. ba ñuy tabax nag dañu waroon bàyyi pant bi topp pant bi. Mhm. parce que boo demee à la baie de San Francisco yi ñuy tukki. Mhm. mais boo demee Los Angeles gisoo gisoo tali yi ni mu ni mu pante. ñu tabax état ci ko bu ndox mi ñu day dem géej. day dem Dakar gis nga région Dakar. ndox warul taa parce que géej gi mooy li ñuy wax ci tubaab zone d'épandage. gis nga bu tawate yeen da ngeen di ñëw plateau ngeen dem ngeen yoonu ben équipe port yéen ben yóbbu euh équipe Soumbédioune yóbbu ben équipe euh, euh ngadje di ngeen ndox mi fa lay dugg d'accord ben point bas mo am te koku bi ñuy liggéey ambassade Japon fofu la ak defaraat ñaari voie bi Ablaye wad defar ñaari voie fofu la ñuy erreur bo sétlo toujours fi ñu nekk prison centrale da fay am ndox si parce que dañu ñëw ba wala top topp pante bi continuer dañu ñëw ba foofu yëgalaat d'accord kon Dakar mhm. problème écoulement la am fenen fi amul inondation fenen fi am inondation yeb nak ñaari mbir moko am dañu fekk yoonu ndox ñu sëkk ko rambalé ko dëkk ci et euh technopole depuis 4 ans 5 ans ñu koy rambalé ñuy sétane te fo bi nekk xale mo doon dexu mew dexu mew la tuddoon ndax nenu faar yi caxar dafa amoon boo kiiwee dafay wex tal gis nga caaro yi

boo xamee ne dex ki dafay dafay génn laltaayam. Mhm. day génn lii bi. débordé. dëkk yu bari ci Dakar nag kooku beneen problème la assainuruñu ko. assainissement bi si war. Kaolack c' est boo xam ne ba nekk su kenn assainir ko amul réseau d' assainissement. Kaolack moom ba tey ndox bi day taa. amul amul réseau assainissement problème boobu la ñu am chaque année day gën a garaaw. waaw mais tax gis nga nag moo tax léegi foog ñu am. Mhm. ñaari plan benn plan bi mooy. Mhm. li ngeen di wax restructuration. restructuration nag ful la moo koy def ginnaaw waxtaan. gis nga Kër Massar gii ngay gis. ak tund woowu yëpp defar ko yomb na. xam nga ngay def. yoonu ndox bi ngay def gis nga boo defee benn canal. bu am 4 à 5 mètres. de large. bu amee 3 mètres de profondeur ndox dootul tax foofu géej la jëm. bu xatee ba xat station de relèvement nga def relèvement mu pompe mu jëm géej. gis nga ma waxaat la leneen parce que li may waxtaan ak yéen. Hmm. wax naa ni seen kii bi mer moo tax. gis nga canaalu Gueule Tapée ba ma la doon wax léegi. xam nga ñaari canal la. waaw am na bu romb de la am na bu nekk Abbas Ndaw gis nga bi nekk Abbas Ndaw samay waajur bu jigéen yàlla na yàlla doole moom moo wax ne ma bi muy boot sama mag. te sama mag 1940 lu jóg bu jigéen. nee a at moomu dafa dafa taw a taw a boo jógee Tilène jëm Wakaam dañ lay jox gaalu joow ngay dugg. mu ne bi nawet bi jeexee. ci la ñu gas canal boobu. mu dem romb marché Gueule Tapée dem ba monument en place de la nation obélisque. dem bopp gis nga fa ñu tabax Massalikul Jinaan. waaw xam nga xam nga lu tax mu xamuloo ko. non non foofu moo doon bopp dex gi Massalikul Jinaan dex la woon. kon dex moo fa nekkoon. dex moo fa nekkoon ba bopp yëpp foofu cité boobu. dex la woon bopp. moo tuddee ko bopp dex gi. gis nga foofu ndox mi daan jógee. jaar im euh, place de l'obélisque mhm. dem dem marche dem dem Gueule Tapée. d' accord honorable kon bu ma déggee raisonnement bi ngay joxe ak euh, ni ngay expliquer système bi. Mhm. acteur politique yu bëri comprendre wuñ ko noonu d' autant plus que ñu bëri dañuy imputer li nga xamante ne moom moo nekk faute bi à l' état du Sénégal. waaw xam nga. Hmm. acteur politique yi Sénégal. Hmm. lan mooy nekk seen principal défaut. mooy ci seen bu fekk ay parti politique la. Hmm spécialisé membres. ñu seen membre une spécialisation xam nga boo français parti socialiste da ngay am Samba agriculture mooy lay absolument kii euh, portuaire. Mhm. kii et cetera kii finance ak yooyu. Mhm. bu nga xamee ne kooku liggéey yëpp mhm. ci société civile tam lu nga mais ko wax solution bi. directeur général sones mhm. dama daan xuus goudi, ci ndox mi te avant loolu mhm. bu ñu dëgg ma leen nawet bi par exemple léegi euh, euh, nawet ñu ngay dàq juin juillet mhm. à partir du mois de mai dañuy wër dëkk bi dugg ci bir, di curé canaux yi gis nga autoroute am na lu ñuy wax ovoïde ovoïde en fan ko am 3 mètres mun na jaar ci biir 3 mètres de hauteur mu ngi ci biir pour ndox mi dem boo déggee par exemple dinañu defaat collecteur enfant. bi mooy que foofu dafa fàtt dañ ko war a defaraat. Mhm. alors acteurs politiques yi yooyu problème la am parce que plan plan assainissement Dakar yëpp. Mhm. xam nañ ko mais li koy faj wax naa foog xam nga li naa naan dañ responsable état bi. Mhm. parce que nit ñi dañuy jaawale. responsabilité service yi. service étatique. fonctionnaire bi def faute. ñu bako fa imputé ko. à l'état à l'état dama lay wax. benn maire. boo xam ne sa dëkk. Mhm. xanaa lu bon ma yaa war xam sa dëkk. nga fekk foo xam ne kenn kenn kenn kenn waru faa jaay nga daggat ko joxe ko. Mhm. service urbanisme visé ko. Mhm. cadastre visé ko sous préfet visé ko. kon loolu service yi la. mais il faut non seulement ñoom mais dañoo war a sanctionner. service étatique parce que da ngay xool ñu mel ni yow. dajale seen xaalis quinze vingt millions. ñu defar lotissement woon catalogue yu rafet génn ko télévision campagne ko ñëpp di ko gis nga dem dëkk fa mais xool li xew Bambilor xool côté Bambilor kam hmm. jaay nit ay nit ay 40 millions 30 millions ndox mi nga fi nga ko tabax ay ndox fa nekk bu tawulee ndox mi génn te am na li ñuy wax zone non aedificandi sénégalais hmm. ñoo ko respecté wul boo demee France hmm. Allemagne États-Unis am na dëkk place yoo xam ne bi àddina sosoo ba léegi kenn laalu ko tout à fait mu mel ni euh, acteur politique yi situation bi lañ doon xaar ngir wàcc wat langue politique bi fum mu nekk nii boo ubbee rajo yi ak télé yi dafa mel ni ñoo ngi ci déconfinement politique ku nekk moo ngi joxe euh, ay di def déclaration jëm ci situation bi inondation mais apporter wuñ solution mais tamit est-ce que war nañ xaar bo situation bi lu métti lu mel ni dal askanu Sénégal ñu génne di ko politiquer honorable Wa xam nga moom laa wax muy muy muy euh, gis nga ni ñu ni ñu génnee ku nekk dem ci ci ci fa mbënd mi ne suñu ko defoon yaa quatre mois bi pandémie bi amee ku nekk dem ci nit ñi massuwu leen takku dem ci hôpital yi nit ñi xam ne lii moo leen wande politicien Sénégal ñaari mbir moo ko dal su tawulee ñu ne ki yor réew mi dafa ay gaaf su yàlla ñëwee ak tawam ñu ne cuune la mënu fee jële mbir mi te ni ko waxee ñii dem di seeti ñi ñëpp gisaguma ku ci wax ne nii la ñu war a def. dañuy mhm. wax nii rek ngir wax. mais oui parce que parce que li ma dañuy dellu fa fa fa ñu nekkoon rek man ku ma woo. Mhm. jox ma crayon ak feuille. te wax naa waxaguma ko président Macky Sall mais man pare naa fi ma toll donte sax bëggatu nekk ci ay bureau di liggéey bëgguma sax. Mhm. mais man am naa gis nga wàll fi ceinture Dakar yëpp laa la wax. xaalis bi ñu ciy wax dama ne mun nañ koo def. lo xamne dafa egg su fekke ay canaux à ciel ouvert lañu def. ah bon mais bien sûr. Ah. mais fi ñu ne xoolal xam nga dama la koy won kon est-ce que ça veut dire c'est pas parce que jox nañ ko expert yi ko war defar. wa mais xam nga tam xam nga euh, bo bo jëlé ben expert. Mhm. ne ko defal ma bassin de rétention defal ma collecteur de la lay defal. Mhm. mais soo bala nga def xaaral ma seet ñoom Ablaye xaaral set seet nekkoon SONES. Mhm. les ingénieurs environnementalistes mhm. xam terrain bi. xam terrain ne leen dara. Mhm. laaj leen gis ñu parce que foo def bassin de rétention. nga def xoolal li xew euh, euh, zone de captage. nous dem nga zone de captage. zone de captage naka tudd xam c'est la zone de captage des eaux pluviales noonu tudd. D'accord. C'est la zone de captage des eaux pluviales. Man, je suis directeur général de SONES. Hmm. Amical des cadres de la SONES. Hmm. Avec inspecteur des impôts de l'Union Nous avons une zone de captage, nous avons une Nous avons une ce nous cadre, nous avons fait cadre. Je zone de man leen du ko def parce que fi yéen xam ngeen bu baax ne zone de captage des eaux pluviales la. Hmm. ndox bi bu fi da fay infiltrer jaar autoroute dem usine usine point B gis nga euh, fi jàkkaarloo EMG. Hmm. xam nga am benn usine des eaux foofu. absolument ndox bu jaar foofu moo daan alimente kon foofu bu ma déggee ngay wax waruñ fa won dëkk sax waruñ won xalaat difa fa dëkk. c' une c'est une faute d'état extrêmement grave. zone de captage. xam nga loolu la koy woon. Hmm. ba tabax Patte droit zone de captage ngi fi. loolu tax tabaxuñu ko.

man je refuse je le dis clairement. donc war nañ def euh, li li di hein, war nañ auditer li nga gestion inondation ah. parce que li ngay wax lu grave honorable c'est extrêmement grave dama lay que hmm. xam nga absolument xam dañ leen ci bi tout à fait. té ñi man on m'a proposé 30 ou 40 parcelles j'ai refusé. sur zone de captage. dañ ma ne ou 40 parcelles ma bañ. ñi ma ko séq li ngi fii ba mu fa jóge lañ ko séddoo. xam nga leen. xam nañ ma xam naa leen. ñu ngi dund. mooy ñi la wuutu woon kon. mais du ñoom rek ak ak ak direction bi état bi fa nekkoon c'est ça la vérité. état bi fa nekkoon jamono jooju. dama ne la. Hmm. yooyu bu ko xóotal xam nga jox naa la élément. Hmm. man ne nekkoon directeur général SONES. Hmm. ba 93. absolument ba ma fa jógee la def loolu séddoo ko dafa ko parcelle.

non l'autre tamit hmm. il faut que comme nous nous, dans la majorité ñi nekk opposition société civile nous, ñoo la nous a nous ba milliards 750 hmm. 750 milliards première phase am avons xam parce que ay frais de amul Nous études hmm. deuxièmement mais investir dans ci année yi Dakar rek te parti ñu investir Dakar inonder tout. tam loolu dañ koy objectivement parce que leen caméra ngeen di yor mhm. ngeen seet yi daan yi doon inondé entre 2012 ak yan côté Pikine yan côté Parcelles Assainies ñoo daan inondé Soleil da daan inondé Hann mhm. Dalifort da daan inondé mhm. da nga koy génne ci xaalis boo xam ne pa parce que 750 milliards xam bu 800 kenn génne ko teg ko ci coffre fort day dañ ko tuuti wut de <laughs> honorable bu doon 1000 milliards sax kenn tëju ko ci ben ben caisse diko guenné génne. dañu wax né 2011 2012 bu féké ne dañu wara a 20 milliards ñu guenné ko 2012 2013 bu ñu guenné 40 milliards ñu guenné ko ba 2023. mi ngi melni vidéo bobu circulé nan Macky Sall 2012 jox na 2000 milliards 2013 jox na du gis ngeen ko waaw yeen ngeen nek ay intellectuel waaw bobu vidéo naka la ko intellect di xolé te ñu laacc ko defar né ko waaw jox Macky Sall. 2000 milliards ci 2013 wa 2000 milliards xana xanaa fay ci salaire yi duñ ko ko laaj. si hein? 2000 milliards yo ndax subvention wuñ ci euh, paysans yi. 2000 milliards ndax ndax jëluñu ci ay garab. Hmm. mais 750 milliards mom exclusivement inondation yi lañ ko jagleeloon lo non non hmm. non 750 milliards yi wax na la né la. Hmm. waxuñu la 750 milliards yi. tay ci 2020. yëpp lañ koy yamalé plan de décennal début 2023 là.

ñu génne parce que tamit muy politicien muy keneen. Mhm. Euh, loi de règlement yi fi génn xam nga bu ñu ci toll duñ ko xool. Mhm. mais loi de règlement yi ñu génne fenn fu nekk xam nañ budget fu mu jaar. naa ne loi de règlement des finances at mu jot dañ koy génne xam nañ ne lii fi la dugal lii fi la dugal lii fi la dugal. kon kon kon bokk nga si ñi nga xam ne ñoo ngi jàpp ne acteur yëpp war nañ ñëw ci assemblée leeral. ñu ubbi si enquête parlementaire loolu. Mhm. même bu ko n ñi waxul woon. assemblée nationale dina ko def parce que hmm. moi xam ci ci pandémie bi ñu génn la moo xam ci lii foog député moi quand xam opposition wala euh, non inscrit wala majorité fak ñu dem Abdoulaye Diouf Sarr hmm. mais avant affaire bi accéléré préparé woon nañu woo ko hmm. mu moi que euh, Mansour Faye moi bii affaire bi am na dañ leen di woo ñu parce que man mi wax ak yow assemblée nationale je suis chargé du contrôle des politiques publiques du Sénégal dans tous les domaines santé éducation démocratisation des investissements je suis chargé du contrôle des politiques publiques. un point focal non en fait pas pour cette affaire parce que mm-hmm. les politiques publiques ça c'est un segment important mm-hmm. pour on approcher de manière objective mm-hmm. parce que Ben

Si vous voulez un commissaire de marché il ne faut pas les nommer pour animer. il faut les nommer chaque fois qu'il y a un marché Si vous voulez un marché pour construire l'aéroport ñu devez nommer kenn marché pour les semaines, ñu devez nommer mais bon, nommer ma Samba ma Demba. mais gars yi jaar ci la France la Italie Dakar honorable

ba Sonacos lakkee war nañ jël plan Orsec foog ñu nit ñi dégg mooy plan Orsec ba pare ba ñu ba ñu dugg ci biir parce que plan Orsec lan fi fi baat bi mujjee mooy secours. mooy wallu nit ñi. Mm-hmm. amul benn ministère fii boo xam ne dañ la sarse nga wallu nit ñi amul. Mm-hmm. amul Sénégal amul Sénégal. te loolu problème la aussi. Mm. du problème parce que mm. bu dee plan Orsec. bu jamono amé xam nga tay ci ban ministre chargé des inondations amul ben ministère bu chargé des inondations. non tu as un ministère chargé de l'eau et de l'assainissement. <laughs> tu as un ministère de l'intérieur. tu as un ministère de culture mais aucun des ministres ne chargé de l'inondation. Mm-hmm. il y a pas dès qu'on déclenche maintenant le plan Orsec si on ko déclencher rek. Mm-hmm. bi ministre du ministre de l'intérieur moy coordonne. pourquoi. le mm-hmm. plan Orsec ci région yi lay jëm. té région yi ministre de l'intérieur le chef gouverneur yi mooy chef préfet du dëgg alors foog yoy ñu ñu léral ko nit ñi pour wax né plan hors sec bo déggee li président waxé mais président waxul né plan hors sec dama ci tabaxat kër yi waxul né dama ci défar ay collecteurs pour pour ma léral la dafa né plan hors 10 milliards ngay wax dafa né 3 milliards yi dañ koy jox nit dégg na sax hein jappalé ko nit ñi waaw xam nga dégg na sax ñu naan Sénégal dal ñom bu ñu xël rek seen xel ci ceeb ak la nekk nga ndox mi na sen sen sen sen sen c'est euh, sen xorom yak sen ciep duñu jox sauf que dañu def ben visite examiner. li nga def xam ñaata la. non non la dafa la bëggoon jëm ak yow. Mhm. mais digënté mhm. jours duñu duñu ba ne ration milliards. ba ngay dugal 10 milliards yi nag ñu continuer di seet nag fu mu toll nga xam ne bu dugalee 3 milliards boo demee ba ci bu doyulee nga dolli moo gën ngay xaar noonu la parce que man dama jàpp ne 10 milliards yi du plafond xam nga bu président ne 7 milliards dama ko jox sapeur pompier mais day bañ dara bett ko ci jënd moto pom jënd gasoil jënd grésil pièce d'échange et cetera groupe électrogène ak yu demee noonu du dëgg te bul fàtte yi bu nekkee ci euh, euh, euh, ci éléments yu mel noonu am na ci ay ay faj bu dalee nit. Mhm. doo fi nekk di joxe ay këyit. lu jàmp la. yooyu la moo tax man 10 milliards dama jàpp ne. Mhm. dañ ko ñu dugalandi. Mhm. comme ni nga wax bu ñu demee nag ba nga xam ne dem nga Fuuta dem Matam dem Casamance dem Kaolack wóor na ne dina ëpp 10 milliards. taxawaay assemblée askan wi dafa mel ni kontaan nuñ ci ah, honorable parce que ñoom dañoo jàpp ne assemblée daal ñoom dañuy nelaw.

voté nañ fi ay loi ci ginnaw do ko fàtte aussi hmm. kon tooguñu won ñun voté nañ ay loi hmm. jox ko gouvernement bi du dëgg nga hmm. gouvernement bi bu ñu pare ci état d'urgence bul fàtte ne président loi habilitation bi defo defoon déposé ko ci bureau assemblée mais loi bi nga xamné mo organise assemblée nationale moy def né at mu jot 31 juillet ba 1er octobre assemblée bi c'est les vacances parlementaires motax tax mbir mi bi mu amé Matugul 10 jours président Moustapha Niass ak Aymérou Ndiéng président groupe parlementaire wax ak ñun membre du bureau dafa bëgg talata ñu réunion de manière exceptionnelle buñu défé réunion bi di nga dégg né buñu bu féké assemblée dafa wara dajé séance extraordinaire donc doon une séance ordinaire parce que buñu ñu vacances bu mbir mu melni Amérique lañuy mëna def te tamit ñun buñu ñu duñ fa voter loi parce que bu féké ni gouvernement andi fa andi fa loi duñ fa voter loi lan lañu mëna def li nga xamné moy mooy assemblée nationale. Mhm. def ben commission pour information. Mhm. ou bien enquête parlementaire. té ñaar yoyu luñu outé mhm. moy information mo gëna gën gaaw euh, euh, dem. de waaw nga xam def ben commission pour def euh, information ñu dem dugg fi dañ fi génn bu dé commission d'enquête parlementaire dafa 10 loolu xamna du ñak dañ koy def mais. ci leneen tamit du caaginu assemblée nationale bu daje rek. ci la député liggéey boo xoolee ci réseaux yi mais gis naa ci ay député yoo xam ne ay maire lañu. Mhm. am na ñoo xam ne duñu ay maire ñu ngi jàppale ñuy dëkkal. Mhm. ci niñ ko mënee.

Euh, dégg nañu ah, ñu bëri di naan oui euh, lébu yi am responsabilité bu mag boo xamante ni si li nga xamante ni moom moo nekk inondation bi parce que lu ci gën a bëri ci Dakar euh, jaay nañ ci parti yu bëri. waaw loolu. Hmm. foofu nag tooñu lébu yi mënul weesu loolu. wax naa la ne la. Hmm. bi domaine national amee. le Senghor fëkk suufu lébu yi. wax naa ko ci benn conférence. Hmm. cité soleil fa mu nekk toolu waa mbot la mbot mooy penc bi nekk fi ci gendarmerie cong suñu nijaay fu Dakar la na jóge dem di béyee ju foofu gis nga euh, fi ñu def arène nationale bi ba cité Lobat Fall fa mu nekk foofu waa caaro yi fa leen daan béyee seen tool la woon taxaloog dexu meew boo ñëwee Euh, fii ci euh, Mermoz. Mhm. gis nga Mermoz ca kaw. Mhm. ba fa ñëw euh, Béji Thioune. Mhm. suufu waa Wakaam la. Ablaye Wade. fii mu tabax kër góor gi. cité kër góor gi. waa Mbengee na ko moom. procès baa nga tribunal. état bi jël suufu Lebu yi jël ko ci depuis 1971 72 ci temps sécheresse bi.

mais mais euh, euh, euh, Ngajaga ca Cambérène ñoom maam li maam laay ñoo ko waa kër maam ñoo ko dëkke dañ fa daan mën di béy. leer na sa bopp. leer na leer na d'accord. fii cité cité Lobat Fall. Mhm. lu tax mu tudd xurunaar ay ay déen la woon ay ay ba ñu nekkee xale ay dune la woon. ñoom dañ ko xamoon moo tax duñ fa dëkk. dañ fa daan béyee Kër Mbay Fall. Mhm. xam nga foofu. Mhm. moo tudd kër Mbay Fall moo tudd Njaay Njooraan kër Masaar gi ngay wax mhm. mooy banqaas gis nga waa mbaaw yi ndox mi yëpp bay baawaan fa la doon jaar gis nga day jëy kite euh, euh, route nationale mhm. jéegi jéegi fa dem banqaas dem ba biir calaan ñun bañ nekkee xale mhm. gis nga kër Mbay Fall fi mu nekk wéru përi mbaaw bu nawet bi jeexee lakk la woon foofu la ñu suñ papa daan yóbbu ñuy fooy d'accord état bi jël ko joxé ko li muy jaay ñu dara état bi ko jël d'accord honorable euh, nga bokk ci euh, coalition Benno Bokk yakar mouvance présidentielle foog ñu waxtané walum politique bi parce que de nga débat bi temps yi ñoo ñuy wax statut du chef de l'opposition japp nga né débat bobu amna importance jamono bi ñu nekk non gis nga dama wax ne fi ñaari affaire suñ ko waxulé leneen luñu wax togn mm-hmm. sénégalais yi la mm-hmm. luñu génné ci pandémie bi fièvre bi mm-hmm. luñu def ba économie dox société dox. nit ñi liggéey leneen lu ci wax ay waxu caaxaan la. kon débat yi amul solo. pour man amul benn solo parce que dafa mais yow am na question actualité ngay wax lu loolu nga ma wax. Mhm. mais actualité kay boo ci taxaw mooy li xam ne moom moo nekk tën jonn ay chef de l' opposition ay mandat de l' opposition ay xaw ma stade de l' opposition yooyu daal nañ ko waxtaanee ci seen ruq gën a jox président mais jarul envoyer mais nag yéen tamit. Mhm. yéen ci ngeen bokk yéen ay génne article yi. Mhm.

et statut chef de l'opposition man duma ci wax parce que chef de l'opposition dama ne mo moo ñoo war a doxadu ba xam ki ki kii kenn du ko tànn moo opposition kenn duko ko dañuy wote rek yéex na. ñu nan ki génn numéro 2 ci élection yi moom la non lool la lay expliquer dama ne la. yoy modul solo fi ñu toll pour man. Mm. lu ci nekk. Mm-hmm. ni nga xam mom lañ ko wara doxé ak li ko war a mooy li olof yi wax kees gi rek at wat wote ji mais nekk fi naan mais bala nga naan diw moo nekk chef de opposition ndax candidat la da nga ko laaj ndax candidat naan ndax candidat chef opposition la. ci élection la. déedéet est-ce que Wade candidat chef opposition fi ñu toll la. est-ce que Idrissa Seck candidat chef opposition là est-ce que Diou Diou diw ma ma candidat ñu ngay laaj. mais tok ce bureau nan Diou Diou yoy yoy c'est amul ben solo. pour pour le Sénégal dégg nañ Sonko moom nee man aw ma chef moom nee amul chef. mais ku nekk ku nekk loo neex wax parce que Sénégal moo bindoo noonu ku mo moo bindoo noonu politicien euh, yu bari dañu foog ne wax ju rëy wax ju rëy ak wax ju am solo bokul est-ce que néew tamit nguur gi. sa nga baal ma sa farandoo bu majorité bi ñoom ñoo bëgg a ajouté kii débat boobu ba nga xamante ne dinañ leen feewaloo ba nga xam ne ñoom dinañ am fu ñu leen jaar parce que waaw mais mais tamit mën di wax Macky stratège la honorable waaw waaw mais nag yow tamit xanaa nag mbër lu mu dof dof bu duggee ci géew war a xam jéem a xam pexe ki mu jàkkaar lool yow waaj bu defee pexe pour ngeen ngeen ngeen féewaloo doo dof pexe bu bañ faale loolu bañ cee bokk mais bien loolu la wax honorable actualité aussi moo que li xew sous région bi mooy débat troisième mandat bi gis nañ Côte d'Ivoire qui nga xamante moy mooy Alassane Dramane investir nañ ko candidat euh, ca Guinée ki nga xamante mom mo nek Condé mom tamit déposé na candidature gis nga Mali li fa xewoon Ñu melni Afrique problème leadership wala question de troisième mandat mon daf leen sonnal lool. Wa xam nga lool dama bëgg xam lan mu andi coow li hmm. ndax ñak déggo ba constitution bi la wala ba ñu defee constitution bi pare naka lañ ko kenn ku nekk di jàngate man Ablaye Matar sa collègue Pape Alé Niang ba ñu def constitution 2016 fii la ñëw toog laaj ma ne ko man Ablaye Matar dama contre limitation des mandats d'un président de la République en Afrique ah bon man ak Jean-Paul Diaz ci responsable politique yi ma xam am carrière ñoo ko commencé à opposé

amul limitation mandat ñom dañuy rétane Allemagne amul limitation mandat Merkel a ngi ci quatrième mandat États-Unis d'Amérique amul limitation mandat. mandats c'est pas écrit il y a un président américain qui a fait plus de trois mandats sur deux mandats successifs une ko y dafa une guerre a tax. lay wax dama lay wax. non xam nga dama lay wax biñu mm-hmm. ne dama lay y a mm-hmm. mbir mo xamné dang une guerre. man il wax lu gëstu ko parce que man bañu moo ku ma weddi xam na laay bañ ku ma yey wax naa la États-Unis seen constitution amu ci am na benn président États-Unis def na troisième mandat bañ ko nee nekkul ci dafa ne guerre bee tax damay présenté wu maa mën a conduire dëkk bi pour nga wax ko Sénégal yi xamul loolu wax naa ne France amul troisième mandat Allemagne amul troisième mandat Russie amul troisième mandat amul limitation des mandats kon léegi boo xam nga fa laa bëggoon jëm leneen rek laay ñaan sénégalais yi at mu jot wala at mu ñu dëgmale élection ñu saaga magistrat yi saaga conseil constitutionnel xas leen bii su fekkee ne constitution bi leerul ci nit ñi te commission politique ñu ngi lay ci fichier bi dama bëgg ñun ñëpp ñu daje d'accord ñu def benn référendum laaj sénégalais yi ndax d'accord nañ ci ñuy limiter mandat ou pas bu ñu paree door dem doo dem élection incha allah mu yéex. su ko defee amul amul conseil constitutionnel amul leneen nañu wax nañu bindaat Né, Sénégalais est-ce que vous êtes d'accord pour la pour la limitation des mandats ñu ne oui est-ce que vous n'êtes pas d'accord ñu ne ñu dem référendum dootul am dootul am. yaa ngi évoqué yenn réew yu ci mel ni France euh, seen état de démocratie yaakaar nga ak Afrique benn la surtout Afrique nga xam ne nit ñi dañuy mooy si nguur ba nga xamante yenn aasi dañ koy am mais duñu bëgg a mais France ban état de démocratie xam nga yéen tuuti ngeen wax naan naka lañ koy wax naan. Euh, exécutif bi lay dugg ci parlementaire bi député yi amuñu ba léegi ma jox la beneen exemple France élection législative yi ñu passé kan moo defar institution du Macron moo ko defar Macron moo defar législative euh, LRM moo defar seen liste ba ñu dem élection municipale moom moo defar liste yi te mooy président de la république lu tax waxu leen ko non gis nga gis nga dafa dama leen jox toujours ay exemple bu amee Sénégal ku nekk wax naan woy Sénégal yu démocratie Macky moo fal député dama ne député français LRM Macron moo defar liste bi est-ce que dafa yàq démocratie bi ñu wax des élections France reporte les élections élection municipale mm-hmm. waxuma bi yoon et pour le même temps euh, François Hollande reporte nañu élection municipale mm-hmm. donc gis nga démocratie la démocratie mm-hmm. xam nga li ci am solo moi ki jiitu bañ a def lu ko neex na waxtaan ak d'accord ci dara bu d'accord ci dara mais mais léegi yéen a ngi wax Li commission politique de réunion ban état démocratique est-ce que yow xel a France président de la République baye commission mu réunion damay code électoral ñu avons assemblée ñu voté ko sans changer ko la ci commission politique bi kan lañ ci élire élire ñu kenn bi parti opposition ñu société civile société civile ñi fa fal kenn ni ni été bind code électoral

gisuloo gars yo xam ne commencé nañu le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel jox position ba nous du nous nous ko. Mhm. ñooñu tooñuñu waa conseil constitutionnel. loolu ngay seet yow 2024 incha allah eggaguñ ci nga commencé fi ñu nekk fu 2020 21 22 23 incha allah ba 2024 kenn du liggéey kenn du tal dara li nga doonoo sànq. politique suba politique ngoon kenn toppatool ndax ñu ñaa ngi añ kenn ñu ngi reer yow daal xam nga ne waaja eh, añul reeru yaa ngi koy eh, fu jéebaane mais fexe la mu am reer nañ ñu bàyyi ñu liggéey réew mi bu ñu liggéey daal man li xam ne moom laa xam ci élection yi mm-hmm. li am Côte d'Ivoire bañ a am feneen mm-hmm. li ak xeneen li nga wax nañu dem référendum loolu da nga ko def en gros titre sëriñ Ndakaaru nee na mm-hmm. nañu dem référendum teg constitution bi fële benn article rek ndax d'accord ngeen amatul limitation wala d'accordu leen bu Sénégal ne oui limitation mu yam fi buñ mu grand li ngay dégg fi yépp hum. ñu ba dafa dañu ci bari. Hum. dañu melni dañu bañ ñi liggéey 2024. te wu dëgg yàlla boo dee candidat boo dul candidat foog ñu nga xam ne moo ñu hum. mooy bi toll. daj bi France dégg nga semaine bi passé le tribunal de commerce de Paris a dit que d'ici juin prochain. 64 000 entreprises françaises vont être déclarées faillites 64 000 gis nga le Sénégal entre en récession. waaw Mais mais xam nga toog sa ñu si le Sénégal entre en récession nga faisons ne état bi la le Sénégal entre en récession moins de doon liggéey day ñàkk liggéeyam. Il doon a jënd kilos de gis nga ne sur actualité bi. Mm-hmm. dévaluation mais français fa actuellement boo koy ci marché bi dafa dafa daanu. nit ñi nit ñi dafa am ñaari affaire ça Sénégal yi dunduguñ ko. lool moy priorité bi mo gën li ñuy wax. dafa am ñaar yo Sénégal dunduguñ ko dunduguñu guerre civile dunduguñu une véritable récession motax bo ñu naan la li xew li xew Mali mu na xew Sénégal li xew RD xam masuñu ko masuñu dund xamuñu lu xew. xamuñu luy récession gis nga boo eggee ba récession bi tar. kala daan dimbali moo dul la mën a dimbali. du yaa ngi seen collègue bi Mamadou Ibra Kane nekk patron de presse ah. du dañ na dàq na gaay chômage technique. te daan defaan emploi su ko defee ñàkk pexe tax. kooku exemple la ci yéen. d'accord kon loolu. mu man fi mu ne yow li nga xam ne mbay Jacques ak ñeneen wax nañ ma wax ak moo tax ma wax ak mm-hmm. mais dama jàpp fi ñu toll. ku fi nekk di wax waxu élection. Mm-hmm. te waxuloo ci nga xamné li mo mo ité moo itteel réew mi. Mm. fii réew mi toll ku xam àddina dëgg nekk un homme d'état waxuma nga nekk un politicien la mm. wax. Mm-hmm. c'est très important homme d'état. nga nek un homme d'état waxuma nga nek un homme qui a été dans l'état ah jël nañ la fi rek parce que man mas nañ laa nommé xaw chef de division ou directeur ou un ministre ay consultation politique y a des ministres yoo xam ne xamuñu dara ci dossier état yi de yéen a ngi ministre xamuñu tous. ah bon nek ministre xamoo dara. dossier mais comment y en a y en a plein. ça il faut aucune information. Mais il y a des... prêts, euh, Bien sûr. C'est bon Mais... <laughs> Euh, Alors donc, nous je ne n'est un homme d'État. nga savons que l'État du Sénégal est mm. mm-hmm. utile. xel def qui nit ñi grand nous nous la pas évident d'accorder le temps bu nous. waron sport parce que nous nga ancien ministre des sports quelques deux minutes si walum euh, CNG bi ciow li mais ban profil de mo wara meuna ki nga non gis nga man wax bu na hmm. CNG bu amul candidat. amul candidat. parce que duñu duñu fal ministre bi nommé kon responsabilité ministre hmm. ci mu tànn kan mu war a diriger CNG xamul tax. Mhm. parce que ki nga dégg mu ne candidat la ak ki ñu ne candidat nga ak ñi ne doo candidat ci làmb ji war ngaa xam bu baax a baax ne kenn ku nekk. Mhm. li la tax a wax kii sa écurie la bokk wala kii sa mbër la wala kii mas naa nekk sa manager wala kii mas naa nekk sa sponsor ñu nekk ci domaine boo xam ne. kenn ku nekk walu wàllu bopp dafa mel ni moo la yëkkati mhm. kon mise nag moo mën a seet kan la war a mën a jur koo xam ne kenn du ne kii nga faral wala bi écrit nga bokk parce que làmb la mhm. mais profil bi tamit am na si solo non parce que caagen li ñuy wax profil loolu loolu mooy problème parce que boo naan profil mhm. da nga naan bi ci jëkk mooy kii faral fenn xam nga lan moo jëkk ci tànn président CNG mooy ku faral fenn kooku mooy meilleur profil d'accord parce que léegi boo jëlee ñu ngi naan Moustapha Gueye mais Moustapha Gueye boo ëllëgee bu dee ñu ne Fass la faral am déet. boo jëlee naka tudd Manga. Manga ñu ne bu ëllëgee boo amee instant ñu ne écurie séeréer. <laughs> kon day métti suwaa bi. bu bu bu ñu nee Tyson dégg nga li Bombardier wax. Mhm. kooku ndax mi ngi waroon fàttagul seen combat gis nga dafa dafa nekk lu jafe. Mhm. mais man daal li nga xam ne moom laa la ci mën a wax. Mhm. mooy man li ma gëm mooy làmb ju tolloogul fu muy dem fédération. d'accord. grand sëriñ de Dakar chef supérieur euh, de la collectivité lebu geureum nañ la sante la. man dama maa geul bu baax a baax quoi vraiment euh di wax dama leen wax encore ci lu wér. Mhm. man sen organe bi dama koy suivre. merci beaucoup. te ni ma koy suivre tamit ci niveau bi ma toll tubaarkàlla. Mhm. li ngeen di liggéey jàpp naa ne luy jariñ réew mi la. jërëjëf moo tax boole ma ci euh, muy leen te li may tëjee nag. Mhm. mooy maa ngi ñaan suñu borom bi ci magu Yonent sallallahu alayhi wa sallam. seen liggéey bi gën a barkeel. yokk bu baax a baax a baax a baax ngeen mën a gën a jëriñ nit ñi daal. internet Dakaractu jox leen dig daje semaine bii di ñëw ak beneen invité si seen i émission Actu Débat jërë ngeen jëf.